Guèye production daanaan bi jàmbaar ji moo àndati ak Abdoulahat Ndiaye borom combinaison yu neex mbokk yi déglu leen bés bi benn bés la le 22 octobre ci arène nationale du xam ngeen ñaa bu ndaw xale bi saf xorom lool te dëkk géejawaay te mën a bëre moo war a jàkkaarloo ak bawol bawol gi buur siin doomu Medina ak bawol ndaw lu rëy mbokk yi Guèye production ne lambu jooju nag la ñu jël daal di koy jagleel les managers de la lutte combat spécial bi war dox ci diggante armée bu ngéwél ak T-Max drapeau boobu la ñu jël daal di koy jagleel Fadel social borom Dakar Dakar Buzz Petitze dina fa jàkkaarloo ak Douglas numéro 2 général bu Pikine jàkkaarloo fa ak Vita mbokk yi Lakam dina fa jàkkaarloo ak Number One Bébé Tay jàkkaarloo fa ak Fils de Ben Dame Junior dina fa jàkkaarloo ak Boy Waranka Fils de Ndéene jàkkaarloo fa ak Bébé Zoro Paul dina fa jàkkaarloo ak Doomu Loro waaye mbokk yi appliqué ak Fils de Kati dinañu fa jàkkaarloo ci le 22 octobre ci arène nationale ñu ànd ci ak Dieye production mbokk yi du xam ngeen Dieye production ndaanaan la ba lamb yegg si Mës. ah bu ngeen gisee Abdoulaye Ndiaye bu toog père Basirou baabu ak ki nga xamante ne moom mooy Garga 2 ku na xam ne ne Gaston production taxawal nañ calaf bu neex a neex bu am solo pour bee bi war a dox ci diggante war a waroon dox ci diggante général bu Malika Doudou Sané euh, booy bi euh, fële booy jaxaw ak ki nga xamante moom mooy njaga doole général Malika nag am blessure tax Gaston production indi solution ci nu mu gën a gaawee jël ki nga xamante ne moom mooy gargade bu jàmbaar daal di koy dugal ci poule boobu noonu ñu bëre demi final final am nga gis ñuy signé li nga xamante ne moom mooy contrat yi fii ci CNG Gaston production defaat marinam ndax 2006 2007 2007 2008 yooyu yëpp ay calaf la yoo xamante ne tey moo génne champion yi fi nekk tey ku mel ni Balla Gaye numéro 2 Modou Lac de Guiers numéro 2 ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne participer woon nañ ci lu mel noonu tey nag leeral yi yaakaar na damay jox Abdoulaye Ndiaye mu andi ko jox ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy amateurs yi lan moo waral ñu jël Garga 2 dugal ko ci. d'abord Lamine ñu ngi lay nuyu di santaat yàlla bu baax di julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur di ñaanal sunu baay sunu ndijaay Alaaji Gaston Mbengue suñu borom gën a fëgg boppam yàlla sama borom gën a yokk wéram. ndax wéram dafa am solo lool non seulement ci làmb waaye non seulement ci ñun bu ñu jógee ci loolu tamit damay sant notre frère sunu xarit sunu doomu ndey di Makan Mbeng di encore di kontaan ci moom contentement bi mooy ku ne xam ne ne structure Gaston Production am na fu mu tolloon waaye mi ngi ciy liggéey liggéey bu doy waar dama tàyyi di ko wax ne amoon na lay amoon na yeneen pexe yu mën def mais à chaque fois mu ngi ci joxe boppam ba mu jeex tàkk parce que mënoon na ni benn poule doy na mënoon na ni li ma jóge daaw am na fu ma toll mu taxaw mais gëm na ni àdduna continuité la li ji ko dénk mi ngi koy doxal ñu ànd ci ak moom ak fierté moom mënul wax loolu lépp mais ñun ñi nga xam ne yàlla may nañu ñu ànd ak moom dañuy wax ne liggéeykat la jàmbaar la te ku bëgg wax dëgg yàlla li muy liggéey mu am professionnalisme bu mat sëkk di nuyu tout la presse waaye di kontaan ci lii nga ñëw pour laaj ko yéen presse bi di nuyu ki nga xam ne sunu ndijaay sunu bàyyi moom it di sunu kilifa di laaji Basiru Baabu toog ak nun nii parce que bari na événement yu bari yoo xam ni fekk na ko fi te def na lu ne ci làmb tey bi ñu ñëwee tey jii mu àndaat mbërëm dugg ci dañ ciy sant yàlla sa yaakaar naa lu toll ni kalaaf bu ñu koy def soxla nañ ci lu mel ni Basiru Baabu bigam dugg ci signature am yaakaar naa leneen la ci ñu sàkkuwaat ñaan ci moom bu baax di ñaan ci réew mi jàmm di féliciter encore ni ma ko waxee woon rek Makan Mbeng bu baax di ko waxaat di courage projet yi bari na charge yi diis na waaye suñu borom a àttan lépp li nga war a def moom def ko yàlla yombal lépp donc ñu lay wax ni ñi ngi jëm ci événement bu mag muy la premier janvier ci kàttanu yàlla ñi ngi jëm ci diggante booy Niang ak Modou Lo waaye avant loolu dafa fekkoon ñu am lu ñu def muy ñaari poule di poule A di waaye poule B bi moo amoon tuuti du benn sax yàqu-yàqu mais général Malika la ñuy wax benn ci moom tuuti mbër mu baax la nit ku jub la ku ne xam na ne xaalis dafa sax ci xol nga signé contrat ak nit ki jël sa contrat jël sa chèque yóbbu dellu si ne ko makkan mu ne ah nga ne ko dama bëgg nga xoolal ma médecin sama loxo bi kat dafa am lu ci des ba léegi te bëgguma dugg ci tournoi di yàq mbaa may tàddal kenn li tax ñi koy wax. pour ëllëg nit jël na avance ci kaw blessure nit jël na avance entraîné jiwul ba dernière minute mu ñëw indi médical wala leneen mais nit bu defee lu baax dañ koy wax ba ñëpp xam ni la ñuy teg ci kaw mbër yi du mbër yëpp a bokk gis-gis ci la daal di delloo si wane ne xool ko xam ni dafa gaañu mu daal ni ah kon nag amul problème ma dem faju ji ba wér yal na ko yàlla wéral baaraamam boobu suñ borom defal ko sutura en tout cas Gaston Production pare na pour saa yu defee mu pare rek ñu pare pour jël ko wutal tey nag ñu andi koo xam ni Gaston Production miin na ko trop Kajoor xam na ko muy xale boo xam ne def na lu ci làmm bu leen fàtte ne ko duggoon na ci ci combat Gaston Production yi bu leen fàtte mook doomu dàngu bëriwoon nañ démb ju bëri bu doy waar muy révélation di xale bu am talent mën a bëri lool suwaa bi nag ci moom la nekk pour bu toll nii diggante dut saane ak njaga doole nga jël xale bi ñuy wax booy jaxaw boole ci garga dën dama koy fermer na xale yi dem bëri ji gis nañ qualité bëri yi mu am ak li mu fi def ci làmb ji jarul laaj ku dugg ci bi da nga xam ni c'est un champion loolu la ñu andi tey pour présenter leen ko ñu si ñaan nag sénégalais yëpp 2006 amoon na tuuti ci tournoi bi fi amoon neexoon na trop mais amoon na tuuti ay favori mais boo xoolee ñaari poule yi favori nayaa lay doon ku ci ni di woo man da nga ko faral ndax boo nee saane Sané ni jaga doole booy jaxaw nga jël encore ki nga xam ne mooy Garga 2 nga dugal ca biir foofu yaakaar naa ku bëgg a gis bëre di nga gis bëre waaye beneen poule bi boo nee gàmmu géey ni caatu yoof ni caatu yaraax ñu ni kan nga daldi ni nga daldi jël ki nga xam ni mooy njaay njaaytin ci côté bawal àndi yaakaar naa ne kooku boo ko jëlee boobu pulit fa la fa yaakaar naa fa la làmb yam ñu bëgg a démarrer mois de février incha allah bëgg a jeexale final bi ci mois de juillet wala chaque de mois te bu ci nekk bëgg nañ ko bootal ak tête d'affiche mais ku ne xam na ni Gaston Production professionalism la ñuy la ñuy liggéey jërul détail jërul bruit yaatu na te yaakaar naa ni li ci kanam raw li bët. wax c'est-à-dire ngay ut benn tête d'affiche li ñu ci gën a ciblé mooy les révélations yi bu leen fàtte Balla Gaye 2 ak Eumeu Sène combat woon boo xam ne Balla dafa na ci blessure xamaguñu heure bu dellusee mën na ci bokk. am na yeneen yoo xam ni ciblé wuñu kenn bépp espoir boo xam ne xool nañ ne xale nga am nga avenir Gaston Production pare na pour teg la ci tête d'affiche yooyu nga bëree ci te yaakaar naa tête d'affiche bu ñu koy wax quatre journée la war nañ am quatre combats majeurs yoo xam ne dinañ ko ci def ñuy ñaan diaspora ak ci réew mi ak bitim réew fu nit mën a nekk rek ndax li ñuy def aussi diaspora bi am nañ ci cër bu rëy sénégalais am nañ ci cër ndax kii dagg tikéem mën a dugg ci stade de feesal ko kooku la ñuy waxal kii mën a jënd perpervu nekk à l'étranger kooku la ñuy waxal doole jënd nag ndox la donc fu Gaston Production egg si ñooñu am nañ ci cër en tout cas ci turu Gaston Production ci njiit ba di suñu bàyyi Gaston Mbengue ba ci Makan Mbengue ba ci Abdoulaat mi ñun ñëpp daal li ñuy wax mooy liggéey rek la ñu woote di ñaan ci réew mi jàmm di ñaan sunu borom defal ñu sutura en tout cas ñu jëm ci bis bu rëy mu le premier janvier loolu daal mooy liñ ci doon andi moo taxoon daal ñu xamal leen ne Garga dafa ñëw tey pour vraiment confirmer ñëw bokk su ko defee poule yi nga xam nag ñaari poule yëpp tëju na léegi incha allah ñu jublu ci liggéey bi au mois de février. Hmm. bismillah pare nga ah. asalaamaaleykum ñi fi teew ñëpp maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant di ñaanal Gaston mi tëdd yal na ko yàlla yokk tanam comme ni ko Cheikh Abdoulaye waxe ndax nit la koo xam ni li ñu bëgg ci doomu aadama mi ngi ci moom jàmbaar la te du nangu befet mukk ci àdduna kon maa ngi ñaanal makkan mi nga xam ni moo jiite moo yore loolu tey yal na ko yàlla dimbali ba mu am taxawaay boobu ba mu am fulla jooju am fayda jooju te it gis naa ko ci moom yal na ko ci yàlla sunu borom dimbali lii mu sumb yaakaar naa ku amul ñu nekk ci sa gannaaw nekk ci sa suuf doo ko mën a doo ko mën a sumb te it ànd naag daal lool ndax xale euh, Serigne Touba dafa wax ni lu ne dees na ko booleeg nit ba mu des euh, toroxal ba mu des yar ak teggin te xale bi ànd naa ànd naag yar ànd naag teggin kon lii nga xam ni moom la jublu yàlla na ko ci yàlla ak yonent ba ak sëñ Basiru dimbali ba mu commencé ko bisimilahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin di ko ñaanal ñi nga xam ni ñoom la àndal ci Gaston Production maa ngi ci seen gannaaw maa ngi ci seen kanam lépp loo xam ne gis naa ko lu leen di fakk talit bu fekkee mën naa ko dindi avant may avant may agsi ci yéen danaa leen ko wax bu fekkee mënuma koo dindi danaa ñëw ñu ànd ànd caag yéen ba loola deñ euh, foofu laay jëm ci yem ci boobu euh, Garga 2 dafa ñëw pour sawe sawe sawe sawe kalaaf bi ndax xaj na bëgg bokkul woon ci biir mais Garga 2 dafa bokk ci Gaston Production nekk xale boo xam ne xale bu yaru la nekk xale bu am fulla nekk xale bu am sutura te it yor jikkoy mbër jikkoy mbër mooy boo demee ci biir géew rek sa fullaak sa fayda da ko def lii nga xam ni moom la jublu yàlla na ko ci yàlla ak yonent ba ak sëñ Basiru turandoom defal ndam ba mu jël kalaaf bi ci ci kàttanu sunu borom jël ko ci fulla jël ko ci fayda jël ko ci yoon maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di leen jox rendez-vous kañ la bis bi le le quatre le yal nañ ci yàlla yonent ba sëñ Touba yóbbu nu tal ko ànd ak jàmm ak salaam ñun ñëpp kenn bañ a manqué di nuyu seen site yëpp maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp wa salaam. waaw ginnaaw baatu onge bi laay mën a seetaan rajim ginnaaw bi ñu yàlla julli ci yonent bi ñu ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi toog fii internet yi nga xam ne a ngi bàyyi seen yitte taxaw dañu xaar di nuyu suñu grand Makan Mbeng di ko wax ni ko wax dëgg yàlla kontaan nañ ci mbégte bi parce que lii du ma ni gulet di ñaan sama papa nag sama papa Gaso Mbeng yàlla na ko suñu borom may wér ak fekke parce que wax dëgg yàlla yàgg na di ma tëgg parce que depuis sama premier combat ba léegi moom moo ko tëgg si sama làmb li ëpp sama combat pergason mbeng moo ko tëgg kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom may ko wér. gudd fan ak wér. ba njabootam fekkee njëriñam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. kalaaf bi nag li may wax rek mooy man miin naa kalaaf yaakaar naa bii may deuxième fois may dugg kalaaf te bi may dugg ci kalaaf wax dëgg yàlla ña ma doon bëreel kenn nangu woon moo dugg ci. kon nag jaadu na tey samay rakk ñëwee wala samay morom ñëw ñu wax proposé ma leen faaw ma jël leen bëreek ñoom loolu tax ma dugg ci kalaaf bi. parce que ay champion lan ay ndaanaan lan wax dëgg yàlla te ñun làmb mooy suñu métier mënuñu toog nag di xaar ay combat yoo xam te ni at bu nekk benn combat ngay bëre wala doo mën ngaa sax année blanche dogalee nag ñu am combat trois combats ci année koy sant yàlla bu baax a baax di wax naa képp koo xam ne supporteru Garga 2 nga na nga wàcc xam ne Garga 2 dugg na ci bi di nuyu waa Ndande Fall gi xam ne laa dëkk di wax képp koo xam te ni doomu Ndande nga rek nga ñaanal seen doom seen rak bis bi mu jublu suñu borom defal ko ci ndam yu kawe kawe ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que dugguma ci kalaaf bi tamit pour daan damaa ñëw pour jël final bi comme ni ma ko defee woon ci bee passé incha allah rabbi doon ne na mbër yëpp wàcc xam ne combat daal du yomb bu yàlla waaw d'abord dugg ci classe bi pour compétir parce tey année bi yoo xam ne benn combat ngay bëre mën nga am sax nga bañ koo bëre Doudou Sané champion la ndaanaan la waaw ñuy wax Garga Doudou Sané peut-être xamuñu Garga 2 peut-être rek lañ xam li ñuy wax rek mooy nan xaar daal te xam ne lamb classe bi daal dina neex incha allah 2005 2006 classe bi fi amoon bii moo koy daax ci kàttanu yàlla parce que ñun ñëpp ay génération lañ te ay bërekat ñoo ci nekk xeexkat wax dëgg yàlla. Mhm. xibaar bi Garga bëri na euh, doole la boo jaxaaw Doudou Sané waaw waaw. xam nga làmb parfois li na dégg ne nee la làmb du maas ab dabante la ambulance may naa ko sens ñu bëre. mënoon naa fi maama Lamine Sans yàlla dogalu ko kon tey su ma defaatee lii du ni gulet yàgg naa ko def dafa am lu ma bëgg a wane nag moo tax ma dugg ci classe bi. du comprendre mais mais waaw loolu. waaw loolu lan ciy kontaan parce que képp ko xam Garga 2 xam ne action sur action lay bëre maam làmb la woo xam te ni daal dinañ ci gis bëre dinañ ci gis xeex li ñuy wax daal mooy amateur yi nan dala seen xel bu baax te xam ne li may dugg xawal naa ko xam naa ko. man aw ma ci choix ku ma làmb boole rek mu bëre parce que nee naa reer julli laa julli reer rek lu ci mën a doon di lu tax reer mucc comprendre nga lu ci war daal mooy. dañuy ñaan yàlla dugg ci bisimilah rahmaani rahim ñoom ñëpp nag ma ñëw leen jël bu gaaw ñibbi incha allah. te armée bu ngéwél ak T-Max drapeau boobu la ñu jël daal di koy jagleel Fadel social borom Dakar Buzz. Pétisé dina fa jàkkaarloo ak Douglas numéro 2. général bu Pikine jàkkaarloo fa ak Vita. mbokk yi dina fa jàkkaarloo ak Number One. Bébé Tay jàkkaarloo fa ak Fils de Ben. Dame Junior dina fa jàkkaarloo ak Boy Waranka. Fils de Ndéene jàkkaarloo fa ak Bébé Zoro. Paul dina fa jàkkaarloo ak Doomu Loro. waaye mbokki yi appliqué ak Fils de Kati ñu fa jàkkaarloo. le 22 octobre ci arène nationale ñu ànd ci ak Guèye production mbokk yi du xam ngeen Guèye production ndaanaan la Abdoulahat Ndiaye la àndal di liggéey lamb ba lamb yegg si fii tey le 22 octobre ku ma fa dëgg ne ma mas